Seyna. waaw Birame. ça va. na nga def naka matinal bi. si jàmm yaa ngi ci liggéey bi. ça va. Euh, tey moom yaay géré parce que tey moom vraiment damay génn. ah bon damay am benn. yaay géré ah. <laughs> te fais confiance. da nga fiy jaarat wala. bon xam naa bu 20h jotee te ñëw ma. yow tëjal quoi. Gamscap Fouta la fa. mais temps yii nii yéen a permission bari de. non juste affaire de business man. mooy loolu ñu war ñu toog ah. juste rien. ¿eh? ok kon baax na. plus. bye. Kekkal fi loo ne. egsi. dama yàkkamti. ça va bien. fi loo ne noo def. ça va bien ça bien merci. ça ana yére yi xale indi nañ ko. indi nañ ko dafa manqué benn yére. aji moom foofu nu ma mënee manqué aji. Ah, loolu moo ma jaaxal moo tax ma ñëw. ndax bi ma xoolee yére yi dafa manqué benn yére. mais sax de moo ma jaaxal ndax man yére yi ni ngeen ko indee nii di ko ëmb par ëmb sama pour may indi ah. ku ñëw teg sa ëmb damay teg sa ëmb pour ba pare gomme passé jox sama doom yóbbul la ndax li nga wax laay bañ jaxaseere ah. bi laay bañ. dafa manqué de te sax du première fois bi njëkkoon na manqué sama benn vaccin bu rouge ba tey gisuma ko mais xam nga rek affaire jigéen la man maa ko moom garaaw mais bii paa yére sama jëkkër moo ko moom ay seen nga bu baax est-ce que. seen nañ ko bu baax nga dem ba demee kër ba xam. déedéet nekku fan mu ngi fii yére bi mu ngi fii si ak yére desul sama néeg bi man sama néeg bi di dugg yére itam dugg. Hmm. yére bu ñëwee fii laa koy teg fóot. gomme li ma la wax sànq rek passé jox sama doomu yóbbu borom yéen dugg sama biir néeg bi aji waaw mais boo xoolee bu baax di nga ko gis ay ngi fi bu ma la waxee mu ngi fi xam naa li ma indi xam naa li ma indi bu baax maa ko defar ba mu baax ko sama doom mu ñëw a dëgër bopp de ah, yéen déggu ma nee naa la réer dugg nekk ah yéen fa sa nekkoon nemes pour la yow yaa kon yow yaa may jox bi nag ceeka léegi nag aji kon lan nga bëgg a wax yow yaa ko sàcc yére yi boo xoolee mu ngi sa biir ndax yow yaa ko sàcc kon yow aji yow kafoo kaf kaf dina ma jëlee sama kër indi ma ba fii pour lan lu tax may kaf génneel yére bi damay dem waaye nag yow yaa ngi bëgg a réew mu dama sa morom <laughs> aji man sa moroomu ndey laa affaire u ndey jëlee ko ci aji xamul ma seq ak yow nga ñëw indi ma fóotal la nga fay ma sama xaalis yéen da ngeen defee ni mbindaan ak fóotkat du nit boo ko sa société bi loolu ngeen foog boo leen tegee seen bopp jaam ñu teg leen fa waaw boo leen fóotee ba mu baax takk delloo problème du am mais loo leen fóot fukki yére te juróom yi sàcc ko pour lan pour lan yëre yi dañ koy fóot ba mu set ndax bu ñu leen di fay dañ leen di fay ba mu mat waaw ak yow faalew ma la ku hmm. di sax faalew ma ko hmm. gis nga bu dee man rek sa yëre doo ci jot te doo jot suba fu la neex demal loo xam defal foo man dem demal man lay xaar waaw noonu nga ko gisee maa ngi dem maa ngi ñëwaat te bu may ñëwaat dinaa ñëwaatee neneen sàcce yi ngeen doon. maa ngi lay xaar réew wa dof. yaay maa ngi ñëw dem marché. dama bëggoon dem jëndi ay bagage jigéen comme que Karim day ñëw te yàgg na foofu ma dem jëndi ay cuuraay sëru noocu goye yu ñu xooj ay sëru mbaal yooyu waay sama gëmmit wa dem la lii kay mënu ko bay ñàkk bañ a ree yaa xewi te yàgg yow ay noxo toog fi am lox sa bu téen raay mu seey pis nga xëm mun naa ma ay ay dama jënd say xarit ka ca say goowe dama lay toog boo ko nangu nii mu waa ko buñ ma laaj ci waa marché ba. waaw maa ngi dem comme que yooyu ñoo xew léegi su ma demee ma jënd ko yaay sama yaay la ma wax rek loolu laa. yaay ma ne waxuma leen comme xamoo leen mën ngaa toog bind si lënd yi defar sa kër gi waaw say cim ndeysaan karim li ma koy yërëm dund la ñu ñàkk sens billaahi xale yor seen karawaas yi guddi di mënoote waate di la ñafi yar ba bës sa takk sa ñaari loxo ndaw Samba war naa mën a ne nag fóot moom di ko mën kuy sa yaay di war a mën a fóot waaye yow ama bi ngay fóote fan nga ko jële sama jabar yaa ñàkk jom mu naan sama jabar jabar ju la dara warul defoo ci moom dara nga naan sama jabar xam nga lan la omo bi ni mu tellu woon na nga ko ko de na ko ci delloo delloo ko fa nga ko jële woon dégg nga li ma la wax ki moom omo bi maa ko moom kër gi maa ko moom lu fi ne maa ko moom sama ndox mii nag li ngay naan ak li ngay sangoo nga xam ne mënuma ci dara ci laa la yemale boo amee sekkat bu tilim na nga koy yónnee sa ndey mu fóotal la ko kuy fóotali jàmbur war ngaa mën a fóotal sa doom sama doom du la fóotal ah ndax fóotalul boppam dama ne boo amee fóot yónnee ko sa yaay que ça soit la première et la dernière fois ngay sumb ci sama kër gi weer deewul ba nga ne ma am defal ci kër gi fayaloo ma ndox fayaloo ma courant ñàkk nga jom may wax nga sama jabar yow rusoo na sama jabar jabar yoo xam ne dara waru la ci moom yow yaa manqué yaa matadi yor jabar waroon a def ci jabar jabar di def ci yow nga naan sama jabar sama ndox mi bu ci sumbati dégg nga li ma la wax ñàkk jom ba dee yow mi manqué matadi